ak taalibeem te mooy imaamu jumaa ji ka tege di sëriñ Moodu Sawa Juuf Faal muy man mii di wax ak yéen di seen jaam jaamu Seex Rafaal ñoom ñooy sëñ Tuubaa may seen Seex Rafaal ka tege di waa